جماعة المسلمين أيها الحاضرون سلام الله ورحمته وبركاته علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ndokk yàlla biñ leen nuyu waatee fiñ leen nuyoo woon daaw te lu ne xej fi waaw waaw nu nuyooti ci kii taxoon ñu nuyuwaat leen te soppeeku xej fi nuyuwaat leen fii ñu leen nuyoo woon te taxute xej fi di leen nuyu nag ngir gëm di saxal nguurug yàlla gi di nangu di dëggal yónnanteg Mustapha yooyu ñaar ku mu daje ci yow mucc nga tey ak ëllëg ñaari jaraaf rekk a fi am ku ñuy wax ibliis ak Mohammed néew na sax ñu daje ci camp di footballandoo waaye tey noo daje tey la guddik vingt-quatre <laughs> defe naa taate mairie ba ku fa dem dafa fekk ay maillon ñuy fut bu baax ci góos <laughs> kii fi indi nag te dig nu fu jële jaayee nu tuuti aswéer aswéer sudul yàq aku yëngu gu nar dal noppiwul wax na ci ñaari kalaa yooyu bu nekk lay seen teeruwaay ëllëg ak seen ay añuwaay fu jegeñ sax alquran fu jegeñ ci taati kër gi lam yakuni alladina kafaru ca weti génn ba وعلى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نير جهنم خالدين فيها يا مجنك مؤمن للخبر ne ulaayka hum sarul bariya sarul bariya dégg naa dégg naa Ablaye naa Samba di wax naan ràndi wu ca taati meeri ba ku bëgg a gis sañ sa ñëwal foofa ulaayka hum xam nga luy seen pay جزاهم عند ربهم أولئك هم السر البريت معي النار جعلنا خالدين فيها شر البريعة وتنا خير البريعة قايويا أجني من لي نيوم نيوم سر البريعة نفك اللي يلا سنتاني fekk kumu mu màggal gi ñu ne ko fi yal banding bàyyi fekk yamu tere aaya ko ñu ñuuxu ko ba ba di ko manifesté waroon sax nëbb mbaa ñu làqu ñu faf di ko wax ca kaw ulaykum sorul bariyati moo taxit men dara biim lan la naaru jahannama mu des benn kalam yi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم الخير البرية xam nga boo gisee borom xam-xam yi ne jullit a gën malaaka ci aay boobu lañ dëgg ndax bañ ne bëri ku dul yàlla rek dugg nga ku dul yàlla yaa ngi ci biir kon ulaykum xayrul bëriya ñoo gën ci lu ñu bind te malaaka dañ ko bind kon ci la ñu dëgg ne xeetu Muhammad ñi ci gëm a gën malaaka malaaka ku ko gën foor nga koo xam ne du mooy yàlla du ko wax du ko def du ko dox du ko xalaat pays ba mu ne xewu fa wax naa barki dimb bi may defal gars yi avant première ci seen guddi Maulana Abal Abashi احمد التيجاني رضي الله تعالى عنه نالين دفا ام تي يالا اي خيتو جامو يالا يو خامني واسوف امونو سي دروا تي بي بارك لا خاج نداخ دنج كو ورا ديف فو سالتي ورانيو كو ديف فو يالا ورانيو كو ديف فو خلاتي لودول لو سنتانه في يالا te loola adratul ilahi rek la am adratul qudsi lañ ko tuddee adratul qudsi mooy foo xam ne kenn mosu faa def bàkkaar kenn mosu faa wax bàkkaar kenn mosu faa xool bàkkaar kenn mosu faa nar bàkkaar am na baadan min asmaillahi taala yoo xam ne yi ci turu yàlla la foofu lañ ko jakkle boo ko bàcci suuf rek suuf si diig nit ñi alako mu ngi mel ni concorde bi am na aérodrome yu mu dal parce que amuñu point pour nga xam nag martaba Mawlana Ahmad Tidiane Chérif permettre nañu ko mu jëfandikoo loo xam ne ci addatu qudsi lañ ko war a jëfandikoo boole ko nag moom Cheikh ci boppam ñu boole ko ko ñu ko ko boo dara du sen ci mom dara du sen ci kum ko jox nga digge nga jëfëndiko ko muy saatu fatiha ndax saatu fatiha boko jange ba mu jeex do degge wa sallim julli guñu julli nabi allahumma salli wa sallim lay doon allahumma salli ala nabi lu mi wa ala ali wa sabi wa sallim fokk wa sallim ñu waye salaatul fatiha amul wa sallim ndax jullig yàlla amul wa sallim jullig malaaka yi amul wa sallim ñoo ngi koy jagloo ci addatul ilahiya amal ko Cheikh Tidiane jàngal suratu yaqatin yàlla dane inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi di foofu la yem wax wa yusallimu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kep ala nabi kep waye bi mënu joxor be nak ne yaay walisina amono yéen nak sallo waye bu len ci yam wa sallimu waaw garaat yi wute yaa ayyuha allazina amanu inna allaha yàlla moom mu porop mi wa malaayikatoo ak malaakaam yi mu poropal ak adraam bi nga xam ne salte amu fi ñoom yu soloona ala nabi képp dañuy julli ci nabi rek yem ci waaye nag yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi gëmte ni ci fu fu salte di def lu salte di wax lu salte salu ali bu len ci yam wa sallimu taslima xamul lu jur lolu de ñaan leen xéewal ci mustafa te laaj yàlla mu musal leen ci moom malaaka yi waxuñu ñu muslu ci nabi ndax duñu xalaat lu bon te xel dafa sob xelum nit dafa sob léeg-léeg mu xalaat ci sëriñam sax lu jaaduwul léeg-léeg mu xalaat ci boromam lu jaaduwul léeg-léeg mu xalaat ci rasulillahi li muy tedd tedd lu jaaduwul xalaat yu bon yooyoo tax boo jullee boole ci wasalimu taslima ama أما أولى القوم عند عند أدرة الإلهية الذين لا يحصون لا ما أمرون ويفعلون ما يؤمرون ولا يقترون في قلوبهم ولا في بالهم شيء مما يكره مولانا تبارك وتعالى ñooñu solo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 ana wasalim yonente bi dafa nekk ci xare mbooye mi metti ndox manqué mu ne bilaal wëral gawar gi ku ci am ndox dimbalelu ñu wër gawar gi ba mu daj seen soxla la ñu fekk mu dese tuuti ci ndox def ko ci pal mooy gamba yu gudd yooyu ñu ne ko yonent bi day doon laaj ndox mu ne man de lii laa dese yonent bi ne indi ko ñu indi ko mu sotti ko ci këlle camp si baaraama di baaraami joxoñam bii ne kaay leen naan ne nañu gawar gi junne lañu woon bu toftal ku naan mandi siggi ku naan mandi siggi siggi ba junne bi daj mu ne indi mbuus yi ku yoosal sa mbuus ba mbuus yi daj mu ne wëgg leen gileem yi ñu wëgg gileem yi ba mu daj soxna si nag ñeeñ ñi loxoom na ko bu ma xamoon ne bu ma la joxee ndox mi doo ci naan kon duma la ko jox ne biree ne ko saaxil xaw mi aaxiruhum surban kuy naan dalee war a mujjee naan kuy naan moo war a mujjee naan olof yi ne na ñu ko seppali jëkk dugal sa loxo ku la topp ngeen giiroo seppali ba noppi <laughs> أعطوا الإمام هدى تودعوا مولاه لا يهدى الإمام هدى تودع مولاه ومن بسطه منه الزجاج سلام مضمال manu laa ñaawal alaaji Mansoor nee na baayam yaa marjai yaa markazi yaa maw ili yaa junnati min kulli ma yaxsaani alaaji Mansoor nee na baayam yaa jibisi yaa kaysiri wa hula ili yaa munyati amali bi kulli awaani saydi aji malik abqayta siidan في الزمان مقلدا ابهى من الياقوت والمرجان سيد اجي مالك بها يرتوي القلوب حتى يتودع موده ومن بر من ماء فهد بناني سيد حاج وبعلمه ساد الانام وجود هذا هلا من ربنا المنان ما مضلنا حتى هلا فوق المشايق كلهم ما إلا بأسر من ثاني الذي منصور رباه ولقد قد بين شيوخ مقام يلو على جوساء ودبران سيد حاج مالك الداس وبه الأبواج لا إلانا مرارا بأسر سوى بجسونه مدننا بيا يرتل الألوف حتى التودع ومن بسطه منه اللجاج سلام مضمض آه، آه، آه، الحب خير الخلق يا سادة الورى والمرتجى لسدائد الاسمان سيد جمال من الداء شفيها الأدواء الى إلانا موضة مرارا مرارا مرارا بها سار شيوب جسونه سيد جمال من الداء يرتوي القلوب حتى تودوا موضة ومن بسيم النجاج سلالة مضمان dafay laaj seede jomaayit rek laa doon indi témoignage ci wax bi ma wax ci baaraamu rasulillahi ba nandal junne ci nit ak junne ci gileem ak junne mbuus dafa am jamono laamiya alaaji maali li mu ci def sax dafa ko ci nu mimiya bi ndax laamiya bi dafa jàpp na bi di ko tagg par cër par cër cër bu ne lu mu mës def mu wax ko ba ñëw ci loxo bi nag mu ne bihaa ca baaraamam joxo ñoom ba ñu ne waaw si mu ne yartawi la nandal uluufu junney nit ataata wadda oo ba ñu desal ba jàpp daana def teen bu néew lox mbaa mu naqari su ko téenee bu ko tiimee tufli ko mu fees dell neex mu ne wamin basqihi mil ujaaj ji saara ju fa ci genn wàllu tufli tam ci la fekk géej gu wex xatt xorom mu soppeeku neex bihaa sufiyat ladwaahu jalla ilaahuna jëmlu istiraada ji mu ci dugal ak taajib miraaran miraaran bihaa saara josoolu suyofu allahu akbar sufiyat saafara nañu bihaa ci tinqal nabiya atlaawu xeeti jàngoro yu tëdd docteur yi yu tëdd docteur yi mu saafara leen sans comprimé sans médicament sans sans piqûre daway laal rek nga bir def na ko nag alaaji maa ngi ne miraaran miraaran ba tàyyi ba tàyyi ba tàyyi muaas ibnu awf ba mu attaqué abba jehlin ca badr ikkanamatu taw abba jehlin boobu tuubagul doxal ko gannaaw xale bi na jaasi ji ŋaas mu tël jaasi ji mu rog mu fëgg ko jaasi loxo bi dog ba génn sidit rek téye ko mu làmbaatu jaasi ci loxo càmmoñ bi songiwaat abba jaasi loxo bay watatu empêché koo xeex dafa ne wëlbit jekkilil boppam loxo bi roof ko ci ceinturam song abba jaasi daggalu pundeejoor bi yu ko gërotandoo mu daanu waaye ba mu demee ci lay téye téye daggiti loxo bi bi daf koy ne ca place ba tegg ne ko mu melaat na mu meloon mu ne ko jugal taxaw mu taxaw mu ne ko wicciqul mu wicciqul loxo ba melaat na mu meloon kenn ñawu ko kenn palaataru ko kenn pikiiru ko kenn nelaw loowu ko la ilaha illallah biha sufiyat waxuñu daa de adwaaw la jam juma la miraaran miraaran allahu akbar wax naa leen muawis na loxo ba def nañ ñëw ci xataadatu ibnu naamaan uhut lañ ko sànni fett mu dugg ca bët ba mu xëcc ko doole bët bi tuuru mu taaw ko fekk rasul fi mu toog ne ko bañu ma laago de waaye dama dama àggali séet bu ndaw te melaw yi bu ma demee dootuma bëgg ne bi téyel loxo ba ca muy rumbu rumbi mu ne ko tàpp ca place ba maasale ko mu jóg taxaw tëpp bët ba mel na mu meloon dund na ba dee bët bi ne bi laalul woon bu ma see wànnant sax bi ne bi laal du wànnant bihaa sufiyat latbaahu miraara miraara miraara bihaa saara jasiilu suyuufu abdurahmaan ibnu awf jaaseem damm mu song yéefar yi amul lu mu song mu fekk nebe ngay jaaru mu ngi taw ëgg man ko xeex bi yàqu na yortuma jaas ne bi rocc génn gillinte ci taal bi roof ko ba mu fay mu ne ko um mu téye ko mu soppi ko di jaas jaas yu jaas yu aw nan lañ ko tudde alaaji malik ne bi biyaa ci ndey jor lu tedd loolu saara la mujjee jësew lu ëkk guñ doon jaaroo so yoo fa di jaas yu jure yi noonu ci saas law alil asraf al xalq ajmain man a ndokk yàlla yàlla ñaari jaraaf la sant ci àddina ku ñuy wax Iblis ak Mohammed néew na trop lu ñuy daje ci benn terrain waaye tey daje nañu ci benn terrain di footballandoo taati mairie ba dégg naa ci Ablaye Naar Samb mu ne ku bëgg a ràndiwu nang fa ñëw ku bëgg a gis rafet sañse bu rafet tey nga gis ko sañse bu rafet la wax waxuma ko de alquran a wax daf ne inna alladina kafaru fii ci lam yakun it ci taati kër gi min ahli alkitabi wal mushrikin fi niiri jahannama xaalidina fiha yàlla sax tegu ci abadan xam nga lu tax tegu ci abadan daf leen jéppi واجمون ان رسنا من وامل صلاه اولئكم اولئكم وخير البريد جسام عند ربهم جنات اذين تجري من تحت على نار خالدين فيها تكنا ابدا دفا بك شي نيوم موتاخ من ابدا جيب ني ري تاخ ابدا دغول سون بروم امنا ابيتي شي واخين بوي واخ لو باخ يا تا بوي واخ لو بون تيل كو كوبي ما ولا الخالدين فلا ام ابدا تفي ام ابدا <laughs> yàlla ne ulaayika gaa yële di football ci camp yi iblis sorul bari etti gaa yi ci xeetu nabi di football ci camp xayrul bari etti maanaam foofu la ñu dëgg ne jullitu bu bokk ci xeetu nabi moo gën malaayika ndax bari yàlla rek génn te yàlla ne na xayrul bari et waaw ku yàlla boole ci ñooñu fàttale ca ñële teel a wax li mu nar fëleeg li mu nar fii nga gestu bokk ci fii boo tuddee sa bopp sant yàlla juumu la jamiyati tahmidi lillahi antum li mu jëkk santaane mooy sant bismillah rahmaan rahim bokkul ci fatiha tur bi rek la wax fatiha ngi dalee ci alhamdulilahi alhamdulilahi lu tax alhamdulilahi ba shiin mimara albahu buaaullahi la alsiinu sanaaullahi la almiimu majdullahi la am na sax ñu ne baawu bukaawu taayibiina la shiin gi sawul xaafiliina la miim gi maxfaratu taayibiina la loolu rek lay signalé baa ji day wane ne lootu seen samaftaar la mooy buhaawulay siin gi muy wane ne lootu seen sama lumière la muy sanaawulay miim gi muy wane lootu seen sama taranga la muy majdillaay mooy baa siin mimara am na ñu ne baaw bu kaawul la jooyu tuubkat yi la ne leen wallu siin gi sawul xaafiri la trompé ñi sax ñi dinaa leen baal mim gi maxfaratu taayibiina muslibiina jéggal ñi am bàkkaar bu kaawul taayibiina mooy baa gi ci tegu sawul xaafiliina moo ci tegu lu ci tegu miim ngi mooy maxfiratul musnibina ñu tuub bu leen baale ñu torompe ba juub mu jéggal leen ñu def bàkkaar mu baal leen mu baax loolu la ubbeekoo téere bi am na mu dem laawu laawu tagu ci laawu am na ñu ne li ahli safaar rahmaani li ahli wafaa rahimi li ahli jafaa اهل صفاء اهل وفاء اهل جفاء ني سالال باتلي مالو ني دارا لا دنت الله نيغا خامني ماتال نيو لي مالين سنت ييب نيوم لا دنت الرحمن ني لانك كارته گم تخيتو محمد نيوم لا دنت الرحيم كون رحمن نيپ موچي تي رحمن لأهل صفا رحيم لأهل جفا لأهل الوفاء رحيم لأهل صفا نك رحمن رحيم جيغي ني واي ام ني ديفرنس بجلائل النعم رحيم بدقائق النعم رحمن موي فينال xéewal yi gën a rëy gën a rëy muy mu di xel loolu nit ñi doylu walis li ñu yor faale woon nit ñi li ñu yor rëy la gëm yàlla may gu rëy la am jàmm may gu rëy la mu rafet may gu rëy la koo koy raxmaani rëy mi nag may yu sew yi la lu demee ni wërsëg taar mbooloo ñu lay topp mooy rëy mi waaye nag am nañu différence bu yaaya rahmaane juumloo yéefar yi moo juumloo nafiq yi moo juumloo moykatu yàlla yi da ngay taxoog nit kër ren ba déwén julliwul benn bés jëlaloo génn julli or ren war a koor doguloo benn bés ngeen soxlandoo ñaari téeméer moo am cent mille dërëm tëla jullikat yépp cinquante mille tëna leen ticc ticc yàlla na sama ndànk gi bu mu juumloo kenn de mu ne sama ndànk gi bu mu juumloo kenn kuy profitoo ak di yàkkamte danga xalaat ku la rëcc waaye man kenn du ma rëcc ci raxmaani ci nga taxawalee sa miir daanu yéefar bi taxoog yow taxawal miiram daanuwul ci rahmaane nga def toiture daanuwul yéefar bi def toiture am daanuwul rahmaane ci nga takka jabar ne bàyyi rek dina xam ne maay soppa yàlla du soobee yàlla dina am doom te du am doom de mu takka am doom nga am doom ngeen taxaloo téere ngeen taxaloo tool nga ne dina defal ndànk rek dina xam ne mooy yàlla bon bu bu bu ñu jiyee ma rek tawal mu tawal ko tawal la mu ëpp la sax faf gerte wala dugub nga ne defal ndànk nag dina xam ne yëfam yi mu am deux millions fukki dërëm tëla nga ne baax na nan dem rek ba jabaram nag jabaram mucc sa jabar ne ci bu ci ngeen dem ba feebar ñëw nga ne man du ma feebar mu feebar nga feebar nga ne lii fii lay yem sukk ci moom rey ngeen yem ñu enu nga ne man xëy na àjjana lañ ma jubale direct ñu salax lay suuf ñibbisi salax koy suuf ñibbisi ngeen yem képp de début à kenn gisul différence kooku nag naa juum la nit fekk rahmaane liggéey liggéey boobule waaye rëy ma ngi koy ëkku rek rahmaan fal fonction ma ci buñ la suulee sottal na faxasu rëy moo nga fële jonkan ca siraat yow ma yoon fa ko fa sa yaqa من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم في في أخرى فإنسان قيام ينظرون وصرت في الأرض بنور ربها ودي الكتاب وجيء بالنبيين والصعداء وقضي الأمرهم بالحق وهم لا يسلمون بنيني ديكي <laughs> بأفانسي من أن أفانسي